ñi nga xam na ñooy takk der yi ji ñoo war a jël seeni matukaay encadré li nga xam ne mooy mbir mi di képp koo xam ne gis na ne yaa ngi def violence ñu daal teg loxo yéen kaay gi ne na ci diwaanu Mbàkke am na si ay militant yeewi askan wi ñoo xam ne am nañu ay gaañu-gaañu journal bi nee na As Babacar bu parti réew mi moom dinañu ko agressé yéen kaay gi de la tribune nee na ci diwaanu Ourossogui ak ci diwaanu Yoff ak ci Kër Masara am na ay militants yi bopp yoo xam ne ñoom a agressé yéen kaay gi de Source nee na ci diwaanu boo xam ne dañu ko agressé pression boobee tax na jamono ji danañu ci ubbi ab enquête ngir nag déglu ñi nga xam ne ñoo def googale giraawaale njiitu réew di président Macky Sall ni ki démb ci conseil des ministres bi daat nay woote li nga xam ne mooy ak dal ci yi nga xam ne jamono ji moom la ñu nekk ma ngi ci Sud Quotidien a kaay gii di lii Quotidien Abdoulaye Diouf Sarr nee na jamono ji programme bi nga xam ne moom la yore amul kenn ku ko yor ci candidat yi nekk ci diwaanu ndakaaro moom Diouf Sarr nee na jamono ji pare na ngir débattre maanaam ak ñi nga xam ne ñooy ay candidat ndax nee na dafa am mission boo xam ne moom la bëgg a doxal ci diwaanu Dakar yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Barthélémy Dias mi nga xam ne mooy candidat Yewwi Askan Wi ci ville bu Ndakaaru Barthélémy Dias ni ki démb moom tamit daan nay wax ab programme am nee na Ndakaaru bi ñu bokk daan nay wax engagement bi nga xam ne am na ko ci ville bu Ndakaaru ndax nee na ville la boo xam ne da koo bëgg a liggéey ba mu ne boy ba tey ci journal bi ñu xëy fekk fa Pape Diop moom tamit wax na yéeneem ci Ndakaaru waaye nag daan nay jël responsable parti politique bii dinay leer ca diwaanu Yoff gi de Les Échos nee na kër ko song Pape Diop nee na dana porter plainte gi di Rewmi Quotidien ñu xibaar naan ñu Sahara Iyane moom te wax na programme boo xam ne ci diwaanu Sicap Liberté nee na bis bu ñu ko dénkee gox boobu maanaam ndaw ñi dana ñu si gis seen bopp bu baax a baax rawatina ci lu jëm ci wàllum entrepreneuriat yéen kay gi di la Soleil njiitu réew mi di président Macky Sall ni ki démb ci conseil des bi wax na ci lu jëm ci wàllum service public nee na campagne électorale bi wërta tax administration bi daal di taxaw yéen kay gi di la Tribune ñu xëy fekk fa économiste bi di Meissa Babou nee na lu jëm ci wàllum campagne bi ak ñi nga xam ne ñoo dul liggéey loole naka perte la goo ci wàllum koom fu ko waaye natt daan na koy passé yéen a gi di libération ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko nee na élection locale yi nga xam ne moom la ñu nekk diggante Yewwi Askan Wi la ak Benno Bokk Yaakaar ak Macky Sall élection la yoo xam ne Sénégal yi dañu ko war a bàyyi xel jëli seen carte d'identité yi dem voté la ji Yewwi Askan Wi kàddu yi Ousmane Sonko la yéen a kaay gi de la témoin xëy di ñu xibaar naan ñu Sonacos ak opérateur privé stockeur yi ñoom nag jamono ji li nga xam ne moom la leen état bu Sénégal sant amul lenn loo xam ne moom lañ ci def ndax nguur gi dafa fixé li nga xam ne mooy gerte gi maanaam deux cent cinquante francs kilo bi waaye nag Sonacos nga xam ne ci état la bokk ñoom Modou Diagne Fada gerte gi jamono ji kilo bi deux cent francs la ñu koy jëndee te moo ni deux cent cinquante la ñu ko fixé ñi nga xam ne nag ñooy béykat yi jamono ji ñoo ngi tumuranke ba mara détaali yéen kay gi di réew mi quotidien nee na njàng meeg njàngale mi daat na yëngu ndax SAEMS ak CUSEMS ni ki démb amul la nañu am mars sa diwaanu Thiès ndax nee nañu am na accord yoo xam ne ñoom ak Sénégal 2018 la ñu ko signé woon ba léegi phrase dali xëddeen yéen wax ci déndu Afrique ak na coup d'état yi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku te force spéciale yi di ko def ana lan moo ko waral la yéene kaay gi nee na nemmeeku nañ ko ca diwaanu Mali ca diwaanu Tchad ca diwaanu Guinée ak tentative coup d'état yoo xam ne ca diwaanu Soudan ca diwaanu Niger ca Bissau ak ca Burkina Faso ñi nga xam ne nag ñooy waa Côte d'Ivoire ñoom bay boo ñu surveiller leen bu baax a baax yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibara naan ñu Sénégal réew yi nga xam ne ñoo gën a ndóol ci àdduna bi réew yooyee ci la Sénégal bokk organisation des nations unies ñoo ko xamle nee na 45 pays yi nga xam ne ñoo gën a ndóol Sénégal ca la bokk yéen a kaay gii di na am na sénégalais boo xam ne rey na ñu ko ca diwaanu États-Unis ca Atlanta ceeb otom la ñu ko joxar bi ay balo fetal ba mu sedd guyu yéen a kaay gi nee na Omar Mbuuj la tudd fanweeri la am yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy ñu xibaar naan ñu tribunalum Dakaaru niki démb toj na ndax dafa am benn marchand ambulant boo xam ne da doon sàcc lu toll ci cent vingt robe ci benn chinois boutique chinois waaye nag daan ko doon ko attee tëj nañ ko benn ko laajee lu tax nga sàcc ko nee na la ñu génn dafa takk jabar def ab mariage boo xam ne mariage bu tocc ba mu fa jógee nag xaalisam wàññeeku bu baax a baax moo tax mu sàccoon lu toll ci cent vingt rob ngir nag mën a suqali ko waat ma ngi ci l'observateur ma ngi ci réew mi quotidien waa ji Juuf la sant yéen kaay gi di la Soleil xëy duñu xibaar naan ñu ASP yi njiitu réew mi di président Macky Sall yokkulaat na leen lu toll ci benn at yéen kaay gi di Libération nee na Amina Badiane mi nga xam ne moo yor lépp loo xam ne jëm na ci wàllum organiser Miss Sénégal daat nañu koy déglu ci njomba yeek giraawaal yi nga xam ne moom la ñu koy tuumal yéen kaay gi nee na Fatima Dione Miss Sénégal bi nga xam ne ne moo doon wax ne dañu koo ëmbal moom tim ni ki démb daan nañu koy déglu bëri na ay ancienne miss yoo xam ne déglu nañu leen yéen kaay gi la soloy xëy di ñu xibaar naan ñu match bi nga xam ne moo war a dox ni ki suba diggante Sénégal ak Guinée Conakry du yomb ci Sénégal la ko waral mooy Balla Touré ak Gana Gueye ñooñee dañu leen testé dañoo amee coronavirus yéen kaay gi di esat Kalidou Koulibaly maa ngi dànkaafu nee na nag bu ko waa CAF testé wu la dafay gedd jóge Cameroun dem ñibbi. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec leen doon may de presse